amaana lam sëñ Maodo nee na xabat te ngëb nga raayaatu izin na drapeau tuula asmaani diiru jamaw am na nag ñaan bu mu ko ñaanal wastur wastur muhammadan mansuura man jaana sëriñ bi sëriñ bi moo la te sa taabu la la ñaanal te sa maam maam Ousmane moom lañ daan tudde maam sa taabu ndax bari lu muy liggéey sa taabu سيدنا مولانا دفمل لا لكي سويكو نوستر يالا نسطر محمد وستر مؤمنا نسطر بل جاءنا ستار يا حق وافتح ايدي تاني محمد نسطر بل جاءنا ستار يا حق sutur yàlla la suturaal sëñ moo doy ñaan de kan nga ñuy suturaal mu ni muhammadana suñu muhammad ni ban mu ni almansuur ka di kun dimbali démb te tey dimbul ñu ne ko ci ci kan ngay woo mu ni yaa xàqu yow yàlla mi nga xam ne yaa sax ndax xàqu tur yàlla bu garaaw ndax moo boole xayyul qayyum xaagi xaawu xayyu la xaaf i xaawu qayyum la yaa xay yaa xàqu ay yaa xayyu yaa qayyum ñu ne ko ah waaw moom sëriñ la buy dugg ci politique mu ne waay na dugg ci politique waaye waftax lahu ay yëpp yi baal yi bunt yëpp nañ ko bëgg a ubbi kon leer na ñun sëñ Maodo ah boobu itam da ngeen ko bëgg ay yëkkati leen ko da ngeen koy yëkkati kay ñu ma ko du ngeen ma ko dee wax leen ko ca kaw moo fi commencé ko ففتحهم بأصول الدين فانتبهوا ربيتهم كلهم في تفجيت في عالي واسترموا أول قل هو في نهجه بيادي وقل أربعنا المقصورة أنا ستار يا أقب واخلق أي ببادي واو موي سبقتهم شوف nga say talibé bi usuli diini ci cosaanal diine fa ca saasa in sabaku nangu nanoo cuubu in faala mutaaddi su ko defee kon ñi ngi nuyu Moustapha Diop le ministre fa tabarakallahu li bi yëpp def na ko def na farata yi def na ni ko ci taxris bi Cheikh Alhaaji Malick addayta farda madihin summa naafilati yow Alhaaji Malick siira li farata indi nga ko li indi nga ko yow itam Moustapha li ciy farata def nga ko li ciy naafila def nga ko di nuyu Serigne Babacar Sey xalifa di ko gërëm di nuyu waa dëkk bi kay kilifay diine yëpp di nuyu Serigne Ali Gueye di nuyu union Jamil union Seydi Jamil bi nekk Louga yëpp di nuyu Serigne Xaddam Cissé di nuyu Serigne Aliou Diop mais ñi ngi nuyu nag préfet bu nu préféré bi te préférable bi ñu lay nuyu di la sant di la gërëm Modou xam naa ko.